prouvé wala prouvé wul. moom yéen yéen a koy wax mais moom du ko wax. fi ma jaar ñii ñëpp jaaruñu fa maa leen gën a ñeme lu métti fuuf. yow foo jaar yow dafa bari. fan nga jaar. dafa bari waaw yow saa yow. yow doomu daan koo nga jaar laa yow

ah lan mooy mbëru simple mbëru simple yi ñeme gëm seen di prouver nga naan mbëru simple baa leen yooyu laa la wax doomu daangu tapet nga de boo bëggee bu yeboo nga xam loolu barki alxuraan ragal nga billaay wallaay tapet nga ba nga ñemee yàlla dee barki yàlla ragal nga ñeme woolu metti barki alxuraan tapet nga laa la wax barki Seydina Mohamed ñeme woo billaay wallaay wa taala yi doomu daangu ñeme woo de wóor na yàlla nga sax li ma lay wax nabil Mustafa barki alxuraan ñeme woo kañ dugg fi barki nabil Mustafa buñ tëddee sa ñu xam ñu fii arène nationale bi toog fi nañ dem ñu jóge daal ko bay barki alxuraan fi lay mujjee fi lay mujjee fi lay mujjee léegi léegi Danaa tudd nañu waxtaan